di ndokel mbollem umma islamiyya bi di ziare bu baakha ba Cheikh Ahmadul Muntaqa diko ñaan suñu borom dolli koo sàmm te dolli koo aar te fayal ko l'islam waye di ziare bu baax Serigne Amdi Modou bend Fall di am begti nak tey ziare Serigne salihou jonne mi nga xamne mo jité al irada wal khidma ak mbollem ñim àndal ci ziar bi di fas ànd ak yéen lépp lo xamne tuké na ci ziar bi inshallah allah danañ amal ab visite fële ci complexe Cheikhul Khadim Euh, muy université bi Cheikh Ahmadul Khadim danañ fa jaar ànd ak yéen ci benn doxu nimeku euh, visite ay visite yu am solo ànd ak ña nga xam ne ñoom la fi sëriñ bi teg ñuy wéyal mm, université bi ak njàngale ma euh, suñ fa jógee itam danañ ñëw fii ci biir kër gi ànd ak yéen ci ziar bi kaddu yu bayee ko ci Cheikh Mamadou Mountakha da ngeen ko am kon ngeen bañ a déconnecté wu rek incha allah lépp lu tukkee ci ziar bi da ngeen ko am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa weer wu ci na tamit jigéen ñi am nañ seen kuréel bi ñëw fii di firi gone jigéen ñi di leen lett weer wu na am na kuréelu jigéen yuy ñëw fii dajale gone jigéen bu laajee firi ñu firi bu laajee wat ñu wat bu laajee raxas ñu raxas bu laajee lett ñu lett aj alxames ajuma bu njëkk ci weer wu ci ne bi ci wet gi tamit gone yu góor yi tamit noonu. weeru ci ndamel alxames ajum ba ca njëkk dana am ñu ñëw ci ñoom it ñu góor bu laajee wat wat bu laajee raxas raxas bu laaj la fóotit isim ñu koy def ñu ngi ci lépp it sëñ bee gàddu lépp waaw jullit bu ñëwit joxe si alalit ñu defal la ci waaw wa baabullahi lam yakun murtaja noonu la doon jërë ngeen jëf leeral yi xam naa daanañ bari daanañ fi ñëw ñëw nañ fi ñetti at ci ren waaye bu ñu ñëwoon daawuñ ko amee nii ndax bu ñëwoon ñi ñi yor tabax bi rek lañu fiy ñu naa ñu fee mooy nangam fee mooy nangam fee nangam waaye ren moom bi ñëwee lañ fee fekk ñu yore njàng mi ñu ne ah, ñu ne ñu ne ñu ni lii fii lee comme leeral yu gën a yaatu daal macha allah leeral yu gën a yaatu kon loolu dañ koy sant yàlla di leen ko sant bu baax tamit ndax euh, ñoom ñii suñuy jëwriñ lañ ci yeneen wàll yu bari ñu bokkaat yeneen i mbooloo ni ki ay rawdu rayahin bi nga xamne mom la serigne bi denk liggey bi serigne Ahmad Badawi jitu ko mom mi mu necc biir am ci solo lol. ñi ko ñi nek reefan fan xamna nañ ko xàmme kéro amna délégation buñ fa mas a yebal moom mii ah, eh, yaakaar mo jitu jiitoon délégation ba and ci ak ñeneen serigne Mor serigne Mor euh, kan ma sha allah dañuy jël ci référence saa ne ndax way euh, manam euh, bëgg gi serigne Touba xam gi ak ragné gi ak ma wité ju kawé ji waaw loolu da da ci ci ci mbooloo waaw organisation beeg yooyu yëpp daal lépp day dugg ci way gi rek waaw <laughs> dañ leen man dama leen di joxe référence saa su ne ci mbooloo ma ne ku leen yàpp dangaa doon xalifaam Sëñ Tuubaa <laughs> ne ne ne ne ñoo mën ci gën ak xalifa waaw gan gu ñoo mën ci addiye <laughs> ak addiye waaw loolu de wér na waaw moo tax daal kii moom ñëw fi eh, ah, xam maam say gis liggéey bi ab soññi lay doonaat ci mbooloo mi bu baax a baax a baax waaw xam naa dinañ ci gën a kii sax ba gën a am ak daara ji ay ay ay ay duggante ndax fii tamit ñi fi teew nii fi mu ne ñu ci bari jàng nañ ba am seeni master ñii ci français ñii ci arabe ñii am seeni licence ñii doon ay jàngalekat ak ay jàngkat daanaka ñoo ne ci mbooloo mi waaw ak suñ mbokki soxna yee nga xam ne xëy na ñiy jàng ñoo ñoo leen ñoo leen ñoo di meññ di leen toppatoo ba ñu ba ñu mat a daal jàng ñoo ñoo moo dajale mbooloo mi nii waaw ak yeneen i kuréel yoo xam ne saa bu ñu déggee ñu jóg ñu yëkkati seen i yi tamit jox ñu ñu joxaale sëñ bi waaw noonu la liggéey bi di doxee. waaw sëriñ bi moom dafa waxoon ni moom dafa natt xool maanaam dafa natt xool ni ah, ci eh, tolluwaayu jamono. li ta eh, ñu ñenn ci njaboot gi ñu dajale woon lu tolloo 40 millions ngir bëggoon ko eh, def dëkkuwaayu kër xasida yi léegi nag eh, foo xam ne fa lañuy denc xasida yi sëriñ bi nag daal di am yéene ànd ko isbu tarxia daal di ne xam nag ci tolluwaayu jamono mu ni comme 40 millions yi foon mu jëlaat 20 millions tekki muy 60 millions mu joxoon ko bëggoon koo jox sëñ aatu ngir bëggoon taxawal ci këru xasida la mu ne donte angaar la itam moom na doon foo xam ne dañ fa mën a denc mbindum sëriñ bi loolu nag sëriñ bi li mu ci wax moom mooy euh, euh, sëriñ Tuubaa moo namm Hizbut Tarqiyyah feeñ ci liggéey université bi waaye ba nuy naal université bi ci jànguwaay bi booba euh, na boole wuñ ci woon këru xasida yi kon nag dajale woon nañ sunu ay addiya ay yoon 200 millions nangam 400 millions dugal ko su ci addiyee ji ñu doon dajale ci université bi waaye bi mu joxee ndigal nag sëñ Atou ni ko dama bëggoon ñu ànd ko bu ko joxee ni ko ñoo koy ànd sëñ bi nag dañu ko lii moom ba euh, euh, sëñ bi dañu ko noo koy ànd waaye sëñ Atou moom dañu ko ta dinaa ko tàmbalee ci téeméeri million ba milliard nga xam ne 60 millions yi moom laalaatu ko da ko da ko bàyyi ak sëriñ bi léegi nag loolu bi mu amee mu tàmbali loolu di di di doxal di doxal ah, nga xam ne plan bi bi nga xam ne moom la njaboot gi jàppoon moom dafa amaat beneen gis-gis boo xam ne mooy bi gën a yaatu ndax ni fi sëñ bi waxee ci engrais mm-hmm. kon loolu moo tax defaral boppam plan bi moom daal départ rek daal di xalaat ni war naa ànd ak imprimerie ndax fooy liggéey eh, barab boo xam ne mbindum sëriñ bi la te mbirum sëriñ bi doon lim boo xam ne mën na si ko xeyaas kooku daal laaj nga waajalaale ay machines yoo xam ne day dëppook jamono ngir wàllu eh, mën def say tirage yi nga bañ a jéggaani dara mm. loolu it sëñ Tuubaa def na xéewal ba ba muy tàmbali gas rek nga xam ne defagul benn saaku ciment daggagoo ci la commencé won prospecté walu imprimerie machine yo xamni mo wara peser ay tonnes ngir meuna a liggéey li mu bëgg loolu it sëñ di ci def ay tawfiq waye bi dañu dam rek danaka covid 19 dik nga xamni moy mooy bokk ci pak yi nga xamni ku kuñ jëm ci yalla da da da lay gaar waaye nag loolu moom moom li sëñ Mountakha wax naan ku diir la nga diir moom rek ngay gis moom li sëriñ bi bëgg rek moom la diir moom la gis tax na bu amee soxlaa benn technicien wala ingénieur wala nangam day jël otom def demande ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu nguur gi ñu may ko autorisation mu jël xaalisam def ci carburant ci otom dem jël waa ji indi wa indi ko fii liggéey ndoom li may liggéey ndoom moom bu paree mu delloowaat ko boole ko la mu koy jox kon nga xam ni moom dara waru ko mënu ko mënu ko woon gàllankoor la mu waxoon ci diggam ak sëriñ bi itam sëñ Tuubaa dimbali na ko ci ba laataa ma fi jege milliard bi mat na ndax 60 millions yooyu ñu waxoon amoon naa lu bëgg ko jox moom dañuy bëri rek suul ko ci wàllum fer nga xam ni euh, diggante fer 16 ak fer 20 ci rajo bi 60 millions suul na ko ci. nga xam ne loolu fer kese la amul ciment amul béton. muy diggante fer 16 ak mooy rajo bi nga 90 centimètres. kon loolu nga xam ni moom. yéene jëfe ndigal la Serigne da koo jaraloon loo xam ne kenn fekk ko ci. ñu ngi ñaan Serigne Touba mu yokk ay leeram. kon nag loolu day na ci ak tënk. Hmm. bu dee ci wàllu euh, rangement yi. yii yëpp dañ ko jënd jëf siin siin. mook revêtement bi ak euh, faux plafond bi nga xam ne yii mobile lay doon waaye boo demee ci kaw yooyu fix lay doon mobile nag moom mooy tey boo soxlaa ci diggante bi mën koo déplacer boo paree nga tëjaat su dee da ngaa soxla waaw dafa ci ay ay ay raay lay daw mm-hmm. ci ay raay lay daw mën a tëj pousse côté bi utiliser côté boobu delluwaat ni nga ko bëggee yooyu moom fixe lay doon waaw am na niveau euh, euh, terrain bi moom mooy euh, côté imprimerie bi bu dee fii mooy RDC bi am na niveau un niveau deux am na ci partie boo xam moom sëriñ bi la ko jagleel muy wet gën mooy ñu koy tudde sit xalif nga xam ni fa la néeg sëriñ bi rek ak salle d'attente ak jàkka ji ak porte d'entrée yëpp foofu foofu la nekkee waaw am na itam Euh, beneen bâtiment bu ci sof bu mu ci sof boo xam ne genre amphithéâtre lay doon nga xam ne dana jël cent vingt places ak place boo xam ne dana am kuréel nga xam ne ngir yenn waxtaan yu ñu bëgg a def ak yoo xam ne itam conférence wala wala wala wala ay gan ñëw fi nga war a waxtaan ak ñoom te loolu it dañ ko boole euh, programme waale euh, li ñuy wax traduire nga xam ne day am place boo xam ne day am ñu fa ne taxaw tradition bi nga xam ne ku fi ne te déggul li ñuy li ñuy wax wala la muy wax ñun dégguñu ko su boobaa dana mën a jàppandi loolu yëpp boole waale na ko ci liggéey bi. xam naa ci tënk daal neexut a topp di leeral rek waaye daal moom liggéey bàyyi gis moom bokkut ak lu ñuy netali waaw. da ngay siy jégalu baax ci mel ni am na yu ñu gaaroon ci xasida yi. Hmm. waaye xëy na liggéey bi. daa am lu ngeen ci yeggali moo tax ngeen kii ko muy xasida yi tegu bi waaw waaw li yi ñu jotoon a rangé fii hmm. comme dañuy toppaat rangement yi hmm. di ko alimenté waat moom nga gis euh, techniciens yi nekk ci ne hmm. loolu moo tax ñu jël yëpp dugal ko ci saal bu mag bi ci kaw nga xam ne fa lañ rangé moom le temps liggéeyaat li loolu it bokkoon na ci euh, téere yoo xam ne sëñ bi moo na ko jox laataa liggéey bi tàmbali ak yi nga xam ne ginnaaw bi dolliwaat na ko fi ba boole ñoog sax sëñ Ahmadou Badawi ngir euh, projet bindaatu xasida wàllu bindaatu am xasida yi te ber bëxru yi mm-hmm. loolu yëpp mu ngi ci biir liggéey bi yaatul la boo xam ne euh, tàmbali nañ ko ba sori nañ ci mi mi ngi dox daanaka ay euh, sa quinze jours wala weer kilifa gi dana ñëw fi dajeek ñoom ñu bokk xoolaat fi mu toll ak lu ñuy gën a avancé loolu fan yii la a waaw bisu ziar ba rek la joxe ndigal li. boobu ak léegi nag ñoom sëñ Yusuf ak Amadou Rafaay ñoom ñëpp ñu ngi ci ci loolu. waaw ah, sant nañ leen bu baax a baax. macha allah xam naa dañoo sant nañ leen bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a jógee euh, Touba Rafahi ñëw ngir. ànd na ñun lii ndax mën naa ne du njëkkul tey yàgg naa dégg seen i ziar ñëw ci eh, ànd ko Hizbut Tarqiyyah te Hizbut Tarqiyyah saa yu wootee dañ leen gis kon loolu it mooy wane ni la sëñ waxoon ni ca 1995 mm-hmm. Hizbut eh, mbooloo yëpp mbooloo yu sëñ Tuubaa benn lañ mu ne mu ne Hizbut Tarqiyyah mm-hmm. maalu xudus jawharu nafis yooyu yëpp benn lañ kon benn mbooloo bi la hmm. amul xaja amul seen loolu la suñ muntaxaa yeesalaat ba ni eh, ñëpp benn lañ waaw dañu moom moom dañoo bokk waaree yaatu di boole xisbu tarqiya ak rawdu rayaxin ñëpp ñuy benn mooy mooy daayira yi gën a waaw ndax ñun ñi bâtiment bi yëpp ñoom dañuy génn dem fële ñun fële direction générale sa ñax ma day génn moom it dem fële su boobaa yëpp man mais fii moom toujours majalis bi kese la hmm. fi na ni recruté waat nañu deux cent gone yoo xam ne ci semaine bii di ñëw dina war a tàmbali jàng mooy ñu jàng alxuraan mokkal ko ci amaguñu fukki at ak ñeent fi ne ñii ngeen fi gis mooy ñu doon def sana saan mooy ñu nekkoon daaw man na trois cent léegi nag boo demee ci cinquième année bi nag sixième année bi yaay tànn da nga bëgg kon ne taalimul asr bi majalis wala da nga bëgg a dem ci ci biir université yi su booba nag yow yaa ci tànn wala bëgg bëgg dem defi métier parce que fële mooy institut métier yi mooy bâtiment bu yokk ba la ngeen di moom fii cycle bi 9 ans la dal. 9 hmm. mois biir 9 ans nag am nañu tuddee def temps de def examen comme bu boo wàccee ngoon gi 8 9h la ñuy ba 2h ba 1 h gi cours renforcement dana la mën a may nga mën a def candidat beneen diplôme jàll loolu tam il est ko nga def cycle bi 9 ans mën nga def 4 ans wala 6 ans ñoom am nañu possibilité boobu. parce que danañ def français danañ def anglais fi ne man ma leen jàngal yenn classe yi taarix ak géographie waaw taarix géographie tax ma kon ñoom euh, dañoo jëlaale boole démb ak tey ah, waaw majalis ah, hmm. waaw déedéet bépp baccalauréat boo am ci état Sénégal du connaître ko waaw fu mu nekk bac bu ndok bac fu mën a doon nag yaa xam an nga daan doon bac boo xam ne état Sénégal du connaître na bac boobu waaw su boog boobu suñu fii la noonu def pré inscription yi ñoom itam janvier danañ ubbi donc dañuy xool nag ba xam ñoom eh, ñaata place lañ war a am. il faut balaa ñu xam ñaata place lañ war a am ñi bindu ñu ci tamit fan lañ jëm loolu ba fa amee waaw ñoom noonu loolu dana ubbi. waaw santé def na première année moom ñi ngi def deuxième année waa ñi defoon première année dana war a dem deuxième année. enquête loolu yëpp sélection bi yëpp benn la moom ci département yëpp benn sélection la mooy bac bi moom. ne nag bac bu état reconnaître waaw loolu mooy sart bu njëkk bi sart ñaar ba ñu doog a xool nag sa kasu darajaat xool mën a xool sa moyenne bi nga am est-ce que ñoom kii élève bu ñëw noonu bokk ak tamit dana sàmmonte tamit kii ban tibu nit la waaw loolu tam dana ko bàyyi xel. waaw bëgg ñu ñëw rek ñu daal di sélectionné comme fii tam doona war a defar ay nit te war noo xool nit koo xam ne tam li nu bëgg dana ne moom waaw ndax du njàngum kese rek mun lay jox nga dem waaw loolu tam dana bokk ci critères yi suñ jëlee ba pare tam même jàngalekat yi même jàngalekat ni kuñ jël fa tam danañ xool est kii pare na ci moom dégg na li sëñ bi bëgg tam da ci am da ci am ndax léeg-léeg yëf yëfaan yi raxandoo ci réew mi waaye dañ ko ci bàyyi xel waaw <laughs> waaye lii moom mooy kërug alxuraan gi waaw mooy di waaw maa ngi ci côté bële ah, waaw moo dend ak fa la ñu jógee ne la waa waaw ah, ñoom côté dispensaire waa moom santé bi bâtiment ba foofu la nekk ñoom am na ci 60 yu def première année fi na ñu ngi ci vacances novembre octobre dégg janvier danañ ubbi danañ jëlaat ñu nekkoon première année dana am ñu dem deuxième année danañ jëlaat tamit ñu bees ñu war a tàmbaliwaat première année encore foofu tam loolu tam mooy santé ak technicien yi santé tam loolu mm. même it ñoom ñëpp ñu ngi def kii euh, nu ñu koy tuddee Hmm, dañuy re stage danoo boole ñaar yëpp xam nga loolu tam jafe na am première année am stage léegi tam comme ñi fiy jàngale professeur yi fi ne mooy ñi nekk dakaar ak ñi nekk euh, université bu Saint-Louis léegi tam ak professeur yi ne ci ci dëkk bi ci hôpitalu Cheikhoul Khadim moo tax district santé yi fi ne poste santé yëpp danoo si ñeenteeg ñoo xam dañuy jël ñiy jàng fii ñu def stage foofu ci waaw tam moo tax ñu ngi boole lépp ñoom waaw ñoom fee ci suuf a pédagogie mooy inscription waaw waaw ñoom inscription a ligne ñee ñoo ko doon jël suñ paree nag danañ woo ñëpp après ñu doog def kii foofa hmm. waaw en ligne waaw waaw presse inscription mu leen presse inscription waaw suñ paree nag ñoom danañ sélectionné suñ sélectionné ba pare a ma xaabal ak ñoom su defee ma xaabal nag ba pare ñu doog leen mën a jël ama na beneen beneen kii fii dépôt document rek la ah, des na beneen étape tam ñu sànn beneen étape